man nag balaa maa dugg ci Cheikh Ahmed Tidiane yi fan la juddoo fan la gaañoo kuy baayam kuy yaayam fan la jàngee ñan ñoo ko jàngal kañ la aji màkka ñan la daje woon ca aj ga ak lam fa am balaa maa dugg ci yooyu loolu taarix zaahir la muy dunduk yaram biyaan yi waaye nag am na lu njëkk yaram mooy ruuxu wali yàlla goo gis su amee zaahir rek xamal am na baatin kon bala ma waxtaan ci zahir bi daanaka ñu bari ci nit ñi sax xam nañ ko damay soobu ci batin bi ba xamal nit ñi kan mooy cheikh batinan ndax walhamdulillah bay ñas daan na wax subhana man satara alxususiyata bilbashariya sellal naa yàlla mi jël xottu yarami doomu aadama nëbbee ko xususiya ga ko yàlla jagleel da ngay gis góor yàlla taxaw rek nga ne ah kii man ak moom ginnaaw moo ngeeg ñaari tànk moo ngeeg ñaari nopp moo ngeeg ñaari bët daanaka man ak moom benn lañ rek la gaa yi daan wax anu'minu li basharayni mislina wala ma hada illa basharum mislukum jàng nañ ko ci alxuraan waaye alhamdulilahi góor yàlla yi nee nañ xam waliyu yàlla moo gën a jafe xam yàlla li anna allaha jallat kamalaatuhu yàlla màggam yi leer na feeñ na walahul kibriyaau fi samawati wal ard waaye waliyu yàlla day lekk la ngay lekk di naan la ngay naan di dox fa ngay dox nga yaakaar ne yoog moomee na nuro waaye déedéet fekke xol baa ngi dund fo xamne yow yegoko ko mutanabbi abu tayyib déggal nako ne kam gharra sabruka wabtisamuka sahiban lamma raaka wa fil hashama la yura mune kam gharra sabruka wabtisamuka sahiban yag nga di naxé ñi sa muñ gi ak sa muñ gi waye wa fil hashama la yura yàlla rokkos na sa dënd gi lo xamne ne kenn mënu gis لولا واجه waaja فإن تحسن الكاميرا كل شيء فما في القلب جل عن الكاميرا mu ne fa in tuxsil caméra caméra su nekkee ne day tënk caméra su nekkee ne day tënk kulla shay'in lu nekk rek waaye fa maa fil qalbi jalla anil caméra benn borom xam-xam ca Mauritanie ma ko mu ne waaye la rakkoo sa xol ba loolu caméra mënu cee jot. kon ñun nag la rakkoo ci sa xol ga la nekk ca baatin ba lañ bugg a luqati nit ñi xam kan mooy cheikh te xam nañ ni kenn du ko xam ba abadan parce que eh, yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam nee na. laa yaarifu nii xaqan xayru rabbi man ku dul sama borom du ma xam dëgg-dëgg ku sama borom ku sama borom du ma xam dëgg nga xool na ginnaaw yonent bi moo ne man sax ku dul sama borom du ma xam dëgg-dëgg nga comprendre que ginnaaw Cheikh Ahmed Tidiane yi dafa donn yonent bi dafa alal waarisi maalil mawruus ka donn ñeel na ko la ñeeloon kiñ donn nga xam ne ndeke moom tamit xam ko dina jafe loolu waaye dinañ ci laal te incha allah. sank ma ngi wax ci arab ne danaka liñu wara war waxtaan ci Cheikh Ahmad Tijaan yeb ben bat matal nako bat baat moy lan moy annahu khatimul wilayati fil al muhammadiyati xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam yeb soko dajale ngandi ak goru yàlla yi awliya yi arifina billah murshiduna yi aqtabi aghwasi ak awtadi ak nujaba yi ak budala yi so len dajale ñom ñep Cheikh Ahmad Tijaan mo si représentant yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam موم مو ماتال ولايه تي خيت محمد كوم ني يونت يالا محمد ماتال يونتي واي نك امنا فا توتي ديفيرانس موي يونتي بي بنين يونتي دوتو نيو غيناو واي سي احمد التجاني واخو نيو بنين ولي دوتو نيو غيناو واي نك يغنا فو خامني ولي غو مانا نيو تي رون مقامم غاي نيك نده موكو طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوغ الغايه في أق أقصى مقام القبانية التي ما فوقها مقام إلا مقام النبوة نعنا ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم ما يجي مقام غو خمنة كبير قبانية بين مقام فيته وكتكو لما ينك ينتي وإلي جنا يمي Baye Niass nee na Cheikh Ahmad Tidiane yemul ci maqaama qutbaaniya bi kese def ko romb ba soobu ci baxru nubuwati géeju ko yonenti ñu yaakaar ne su génnee day nekk yonenti mu génn set wecc ci wa nekk wali gu leer naññ bàyyi na la amriya haza cheikhu dafa wilayatin tafajjara min bahri nubuwati safiya la amriya géñ naa ci sama dund haza cheikhu Cheikh Tidiane mii Baye Niass nee na géñ naa ci samak dund Cheikh Ahmada Tidiane mi aynu wilaayatin moom mooy jëmmuk wilaaya waaye te fajjara dafa dafa balee génnee min baxri nubuwati ci géejug yonent gi saafiyan mu nekk ku set wecc ci nubuwa bam duggee ci géejug nubuwa de mënoon na nekk yonent euh, ñu wax ko bàyyi bàyyi ne déet parce que euh, euh, jën yi ñuy lekk ñun nekkul ne ndoxu géej gu xoromu gi lañuy lekk ndax su nekkoon ne ndoxum géej gu xoromu gi la ñuy lekk ñun duñ leen dañuy naan kon ñun duñ leen mën a lekk waaye yàlla topp yàlla tawal na leen foofu li ñu tuddee matarun naysaan taw googu ñu jàng xisaabul fale yi xam nañ ko semaine lay taw ci biir at mi ndox moomu mu neex la moom la yàlla di dencal jën yi ca biir géej ga ñuy naan si ndox moom kon cheikh dugg na ci biir baxaru nubuwati waaye ndeysaan moo ngi doon naan yaa ngi dégg de ci géejug wilaaya ci biir baxaru nubuwa ndeke nga xam ne géejub ki leen moom benn la mooy yonent bi waaye jël na nag géejug wilaaya teg ko ci loxoog Cheikh Ahmad Tijani la moo tax Cheikh Ahmad Tidiane nee na laa yashrabu waliyun wala yasqa li mu wax nëbb ko def ko bind bam leer nañ su nekkee ne am na waliyu yàlla guy ragal a wax Cheikh Ahmad Tidiane yi bokku si Cheikh Ahmad Tidiane nee ne laa yashrabu waliyun benn waliyu du naan wala yasqa benn waliyu du nandal ci géejug wilaaya illa min baxrina lu mooy suñ géej ñu ne ko loolu kaña mu ne min nashatil alami fa yàlla sàkkee àdduna gi ila nafxi fi suuri ba Israfil ëf ci trompette bi bépp wër yàlla gu naan rek ci sama géej nga naan ndax géejug wilaaya man la ko yont yàlla Muhammad sédd soo déggee nag ñu ne waliyu yàlla goo gisati ci àdduna ci ron maqaam Cheikh Ahmada Tijaani yi euh, lay lay nekk danañ ko leeral bu baax te képp ko xam ne am na ci lu la lent al baabu maftuhun amaama man yuridu al wuluja ila xadara li yastasfira ay istisfaar inshaa inshaa allah ubbil nañ bunt bi képp koo xam ne rek bëgg nga ci laaj alhamdulilah danaa leeral nag lu tax lan ci Ahmad Tidiane radiyallahu anhu waliyu gu ñëw ci ron maqaamam ngay nekk ndax moo ko ñaanoon yonent bi waaye am na lu ko yonent bi junj am na yoo xam ne ay sekkere la daanaka alhamdulilah ca jàkka ja lañ koy waxtaanee euh, fii du palaasam ndax am na lu ko yonent bi tontu ay xaraf yoo xam ne dañ ko abrégé suñ ko firi woon yaani dana nekk azharnal asrara loolu moo tax nag foofu mën nañ ko bàyyi noonu دمنا ci بير حقيقة المحمدية ناخ توجور غور يالله يي ci مقام حقيقة المحمدية لا ني راونتي كوي حقيقة المحمدية مو يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم غور يالله يي فا لا ني راونتي ndax abu yazid al bastami ki nga xamne kangam la ngandal la gor yalla la te am maqama yu ray am ma'rifa billah am shahada qalbiya am ghizar al كوكو تخاو ناني طلبت الوقوف على الحقيقة المحمدية فإذا بيني وبينها سبقون ألف هجاب من نور لو دنوت واحدا من تلك الحجب لاحترقت كما تحترق الشعرة إذا ألقيت في النار من ساكونا فنك حقيقة المحمدية بور خول مقام حقيقة المحمدية ndekete yow sama digantek haqiqatul muhammadi amna 70000 kiray kiiraay gu nekk su ma ko jege woon dinaa lakk comme cunqool guñ sànni ci safara ni muy lakkee mooy karaw kon nag nga xam ne xaqatul muhammad ya fale góor yàlla yi di rawante gis nga leer yu tàng yooyu fala si Ahmad Tidiane xuus dem di jàll leer yi tàng lakk kow lakk suuf lakk ndeyjoor lakk càmmoñ waaye muy dem rek ba leer yi tàngee ba tàng ba tàng nag foofu nag la gestu gis yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu daal ko laaj benn question mu ne yonent bi ayul awliyaay ala maqaaman foofu ngay xam ne bokkul ak gaa yi fam bëgg a yegg ci question bi nga koy xam mu ne ko kan ci góor yàlla yi moo gën a rëy maqaama kan moo gën a foor maqaama ci góor yàlla yi kooku laa laaj wax ma ko kii leer yi tàng na mais fasul yéene taxaw ndax yittee góor yàlla yi daan na wax moom Cheikh Ahmad Tidiane himmatu rajuli wara al arshi yitteeg doomu aadama passé na arashuk yàlla gi doomu aadama lu mu bëgg rek yitte gi mën na ko koo may mu daal di taxaw ci leer yu tàng yooyu ci kiiraa yu tàng yooyu ci biir maqaama xaqiqatul muhammadiya mu ne yonent bi ayul awliyaay ala maqaaman góor yàlla yi kan moo ci gën a kowe maqaam kan yonent bi salaa sallam ne ko al jaylaani wal xaatami abdul qadir al jaylaani wa muhammad ibn al arabi al xaatami ñaari ngand la si abdul jaylaani ci ñi gën a kowe maqaama ci góor yàlla yi lañ ndax waxam wone na ko wa bahri muhitun bil bihari bi asriha wa ilmi hawa man kana qabli wa man ba'di muhammad ibn rabil hatami ci ci ñi gëna kowe ci goru yàlla yi maqaama la la bok ndax mom wax na ko ba ana khatmul wilayati duna shakkin li irsil hashimi ma al masih way na ko dem ba mëna wotu wootu wilaya fi ummati muhammadin kon nga xamne koku kooku maqaamam màgg na cheikh matijani laaj yonent bi sallallahu alayhi wa kan moo gën a kawe maqaama ci góor yàlla yi mu tuddal ko ñaar ñi ñaar ñii nag seen maqaama dafa kawe kawe waay goo xam ne diggante Cheikh Abdul Qadir Jaylaani ak eh, Cheikh Ahmad Tijaani la nekk ci diggante yonent Isa ak Muhammad ci at moo jaar seen diggante. Cheikh eh, Abdul Qadir demoon na ba ne sama tànk bi moo ngi ci dox bépp wali yàlla loolu ñëpp liir nañ ko ah dëgg la ndax nituk jamono mi la mu la namoon ci wax jooju mais xoola Ibn Arabil Xaatami ci maqaama gu kawe gi dem na ba ne moom moo motal wilaaya ci xeetu muhammad waaye ba muy wax ne an bihi bina xatama allahu alwilayata fantahat ilayna fala xatmun yakunu laha baadi wa ma faaza lil xatmi allazi muhammadin min ummatihi wal ilmi illa ana wahdi ci man la yàlla matalee wilaaya ci laa ci muhammad ba muy pare rek ndeke xatif rabbaani woo na ko yabna al arabi al xaatami laysa laka ma zananta wa tamannayta wa innama huwa li waliyin fi axiri zamani ismuhu ahmad ibnu muhammad tijani yow de la ngay wootu ndeke xaatifu rabbani woo nag mooy téléphone yàlla bi ne ko yow muhammad ibn rabin xaatami la ngay wootu di ko yaakaar ne yaa ko moom moomoo ko waa ji taxaw ne sallamtul umura ila xaaliqi delloo naa mbir mi ca ka ko moom waaye taalama jaalat basirati fil xayb waaye sama gis-gis daan na wër ci xaybu du ma gis ku mel ni man ma yaakaar ne ma man maa moom maqaama bi xam nga kii kawe na maqaama parce que lii li tax ma indi ko pour nga xam garaatug muhammad ibn rabil xaatami ndax dem na ba wootu xatmul wilaya ci ci umma muhammad waaye nag dellu na ginnaaw nag xoolal si Abdul Qadir Jaylaani ba mu waxee sama tànk baa ngi ci dox bépp walu yàlla am na ay walu yàlla yu bëri yu bëri yu bëri yoo xam ne ci jamonoom lañ bokkoon nangul nañ ko lam wax am na ci kenn du ma tudd turam doomam ju jigéen a ngi koy wat ba gis tànk si Abdul Qadir Jaylaani ci kaw ndel bi doom ju jigéen ji ne ko sëñ bi tànk bi nag mu ne bàyyi ko foofu tànk si Abdul Qadir Jaylaani la moo ngi ci dox bépp walu yàlla am beneen waliyu duma ko tudd moo ngi jàngale ci mbooloom ñaar fukki junni doomu aadama ñoo ko daan wër suy jàngale dañoo jékki-jékki rek dégg ne sadaqta sadaqta muy wax dëgg la dëgg la ñu ne ko seen bi koy waxal mu ne Cheikh Abdul Qadir Jaylaani ca Baghdad nee na tànkam gaa ngi ci dox bépp waliyu yàlla te wax na dégg kon moo tax guddi ga Cheikh Ahmada Tijaani yi yegsee ci makaama gi mooy xat xatmiya guddi googu dafa dafa woo yi ñu ñëw mu wax wax joo xam ne benn góor yàlla mosu koo wax te kenn mësu koo ñemee wax te kenn dootu ko wax ba àdduna xëy jeex ñu ne ko mooy wax jànd mu ne euh, dafa woo gaay ñu ñëw mu ne leen qadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyin lillah sama ñaari tànk yi daal fii ma toog tey ñoo ngi ci dox bépp waliyu yàlla ngeen bàyyi xel nag du tànk yam doon doxee tànk yi beneen ishaara la xam nga alqadamu indal alqawmi ibaara anil maqaam tànk day firi maqaam sama tànk yi ñoo ngi ci dox bépp waliyu yàlla ba mu ko waxee gaay tiit xëy na kenn ñemewu koo tontu lu mooy kenn ci taalibe yi Mahamadul Haafaz kama ahsib moo ko laaj mu ne ko yaa cheikhu mu laaj ko mu ne sëriñ bi anta fi sahwi am fi sukri yow da ngaa màndi ci sàngaraag yàlla gi di wax ba yëgoo fa nga nekk yëgoo la ngay wax walla bokk yaa ngi ak sa xel ndax léeg day am am na ci góor yàlla yoo xam ne suñu fàddoo ci biir maqaama yont yàlla muhammad dañuy wax ci làmmiñu yont yàlla muhammad nga yaakaar ne nag ñoom ñoo moom maqaama googu waaye fekkee moomuñu ko ba cheikh waxee lii waa ji laaj ko ne anta fi sahwi am fi sukri cheikh def ko tontu jóg ne ana fi kamali sahwi wa lillahi maa ngi ci sama xel gu mat sëkk comme ni Baye Niass radiyallahu anhu di wax rek wa ma qultu an shathin wa da'wa aridatin balil iznu min indil jalili li qawlati من ما قلت أن شك من دم وقت هو دعوة عريضة ولا ديوات أي مقام بل الإذن لقل من عند الجليل لقولتي لول شيخ متجان انا في كمال الصحي ولله الحمد وادي نكو اه سوني كان يانغك سخيل دي مبير كيف تقول هذا وعبد القادر الجيلاني ببغداد يقول qadamihatihi ala raqabati kulli wali yow kon sëñ bi nan ngay waxee lii te barki dem moo njaay Abdul Qadir Jaylaani ca Bagdaad ne woon na sama tànk baa ngi ci dox bépp wali yàlla mais pareegul Cheikh ne waaye nitu jamonoom la wax ñoom moo leen raw ndax ñëpp nanguloon nañ ko waaye nag man li ma lay wax nii mooy qadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyin lillah min ladun aadama ila nafxi fi suuri sama ñaari tànk ñoo ngi ci dox bépp waliyu yàlla jëlee ko ba yàlla sàkke aadama ba àdduna xëy bi ma xëy nag fii la mbir mi nag yéeme nag gars yëpp daal di xoolante xam ne mbir mi rëy na lool mu daal di laaj sëñ bi bàyyiwu ko mu ne ko xajjarta waasi an xatal nga lu yaatu woon alam yumkin lillah an yaxluqa waliyan ala minka maqaman xanaa yàlla mënul sàkk wali gu la ëpp garaat sa ginnaaw xam nga góor yàlla su nekkee ne alhamdulilah nit ki su nekkee ne ci xam-xam lay dund ak si dëgg day ubbeeku ku bëgg a laaj laaj Cheikh Tidiane dafa ubbeeku bàyyi taalibe bi mu laaj waaye am na ay sëriñ yoo xam ne kenn ñemewu leen laaj teguñu ko fenn nag laaj eh, laaj day ñëw parce que nit day jaaxle te yow sëriñ bi wa in istansarukum fi diin fa aleykum nasar yàlla ne suñu leen dimbalikoo ci diine gi pour ngeen eh, gindi nit ñi dafa war pour ngeen gindi leen Cheikh ma Tidiane nag ba mu waxee wax jooju dafa ubbi bàyyi taalibe bi di ko laaj. taalibe bi ne ko sëñ bi xatal nga lu yaatuwoon xanaa yàlla mënul sàkk waliyu gu la ëpp garaat Maulana Cheikh ne ko ahankay walakinahu laa yafal waaye du ko def fan la ko teg mooy kama annahu yastatiu an yaxluqa aadama min muhammadin wala yafal mën na sàkk ko ëpp muhammad waa ji ko waaw mu ne ko est ce que dana ko def mu ko déedéet mu ne muhammad moo matal nubuwa man na matal wilaaya jeex na foofu nag alhamdulilahi la Cheikh terminé maqaama bi képp koo xam ne rek waliyu yàlla nga soo wàccee après cheikh ci ron maqaamam ngay nekk mais nag euh, tegtal gi maanaam lii firi loolu moo ngi ñëw lan mooy firi loolu mooy Cheikh Ahmad Tidiane ci biir leer yañ doon wax sànq dox na ci biir xaqatul muhammadiya ba leer yi tàngee mu laaj yonent bi saai sallam ayul awliyaay ala maqaaman naam yonent bi tontu na ko ne ko al cheikh Abdul Qadir Jaylaani ak Muhammad ibn Rabil Xaatami lan la ko ci tegal moom cheikh def ko ne a wasala huna ahadun min al awliya fii ma taxaw tey ak leer yu tàng yi ak xaal yu tàng yi te jëlliyaat yu métti yi manifestation yu garaaw yi fii est ce que am na benn waliyu yàlla gu yegg fii yonent yàlla Muhammad saa sallam ne ko waaw am nañu fi yegg comme ndeysaan ni ko daan Maolana Cheikh Hassan dem di waxee baradallahu madjaahu ndeysaan mu ne ko est ce que am na ku yegg fii ci góoru yàlla yi yonent yàlla Muhammad saa sallam tontu ko ne ko waaw am nañu fi yegg junaydu yegg na fi danañ leeral koo koy kan xasanul basri yegg na fi danañ leeral koo koy kan limaamul busayri yegg na fi ak ñeneen mu ne ñii nag faqad balagu ushra al maqaami fa galabahum tajalli fa lam yamdu dem nañ ba soo diviser maqaama gi nga taxaw par dix benn bi dixième bi yeggoon nañ ko waaye nag te jalli bi métti manifestation bi tàng gars yi able foofu dellu mu ne ko dago am ma cheikhaani waaye nag am na sa ñaari ñaari waliyu yàlla mooy abdul qadir jaylaani ak xaatami faqat balaga wasatal maqaam ñoom dem nañ ba soo diviser maqaam bi par deux bi yeggoon nañ ko leer yi tàng ñu dellu mais Cheikh Ahmad Tidiane yi continué wa amma cheikhu faqad talaasaqa bahru sirrihi bi bahri sirri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu dem nag ba buntu ba leeram taxaloog leeru yonent bi xaysu la yasau li waliyin min al ay du du jàppandal mukk benn waliyu ci waliyu yàlla yi an yetadaxala fi ma baynahu wa bayna rasulillahi sallallahu alayhi waliyu yàlla mënatul am maqaama ak garaat ba féetee diggante Maulana Cheikh Ahmad Tijani ak yonent yàlla Muhammad xam nga man su may nettali damay joxe benn exemple bu bu gàtt bu leer ci Cheikh mooy ku nekk xam na ne Sayyiduna Abubakar na Siddiq moom mooy ki nga xam ne moo gën a màgg garaat ci saxaaba yi yonent yàlla Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ما تحت قبة السماء بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر الصديق ران أسمان بي ginnaaw yonent yi amul ku gën a màgg maqaama ci Abu Bakrin as Siddiq xam nga Abu Bakr Siddiq euh, su yonent bi passé rek moo ci tegu Abu Bakr Siddiq moom rek mooy ki jiite yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ki jiite jullit ñi alquran a ngi wàcc jibril a ngi wàcc yonent bee ngi dund yaa ngi dégg de euh, xaal gaa ngi dox mu mu jiite kon Abu moomu moom la yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam maa saba allahu fi sadri shay'an illaa wa sabahu fi sadri abi bakrin yàlla musul sotti ci sama dënn ci te ay tajalliyaat ay leer ak ay yokkute ci yàlla lu may mu sottiwaat ko ci dënn abu bakrin as kon abu bakar mi war na seetaat war nañ seetaat kan mooy abu bakar abu bakar as-siddiq mooy koo xam ne mooy kii yàlla di wax saani yasnayni idh huma fil ghaar ñoom ñaar moom ak yonent bi nekkoon nañ ca xuntuma ca gàddaay ga abu moo ci ngëm yàlla Muhammad dafa gëm Aboubacar gëm Aboubacar moo ñaareel yonent bi ci gàddaay ñoom ñaar ñu àndoon Aboubacar moo ñaareel yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci lan moo ko ñaareel ci xilaafa parce que yonent bi ba fi jógee Aboubacar moo ko remplacé Aboubacar moo ñaareel yonent fan ci bàmmeel yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam Aboubacar moo ko fekki ci bàmmeelam ñaareel ko kon xam nga ne suñu waxee yonent bi rek Aboubacar lañ ciy teg kooku nag ci wàllu zahir la mais ni Aboubacar ah signalé maqaam boobu ci wàllu zahir ba soo tuddee yonent bi rek Aboubacar lañ ciy teg loolu am na am na am na ku koy joué ci biir baatin te kookoo Cheikh Ahmed Tidiane Cherif radiyallahu anhu Cheikh Ahmed Tidiane yi su wali yàlla yëpp dajee moo ci mel ni Aboubacar ci biir saxaaba yi ngeen moytu nag balaa ngeen yaakaar ne Cheikh Ahmed Tidiane yi moo ëpp garaat ci saxaaba yi déedéet. Cheikh saxaaba yi ñu ëpp grade ci si Cheikh Ahmada Tidiane yi werante amul foofu mais léeg-léeg ñiy bëgg taxal nag ay di weddi ak di nju njaaj ak di fallaxe dañuy bëgg di wax ne ñooñu Tidiane de dañuy wax ne Cheikh Ahmada Tidiane yi moo ëpp grade ci saxaaba yi ñu ñun waxuñu loolu saxaaba yi ñoo ëpp grade ci kenn ku yàlla sàkk ginnaaw yonent yi mais Aboubacar makaama googu muy dund ba yàlla di wax ñoom ñaar ca biir xuntuma xamal ne Cheikh Ahmad Tidiane nee ne ruuxi wa ruuxuhu sallallahu alayhi wa sallam ka haatayni min yowmi xalaqa allahu samawaati sab'a sama ruuxu ak ruuxu yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi sallam ñoo melandoo nii mu joxoñ joxoñu kaay bi ak baaraam bi ci digg bi ruuxu yonent mooy baaraam bu gudd bi ruuxam bi mooy baaraamu joxoñu kaay gi mu ne nii lañ mel depuis ba yàlla di sàkk asamaan juróom-ñaar فروحه صلى الله عليه وسلم تمد الأنبياء والمرسلين وروحي تمد العارفين والأقطاب روح ينتي الله محمد ديوكو ينتي أكم ويصلوي سما روح ديوكنك العارفين عارفين بالله أقبوي بعد نخيجيخ كن يوم نيار لون نياري روح يوي لون <clears throat> نياري روح يوي لون comme na ñoom ñaar ñaari sahaaba bi ak yonent bi nañ meloon ca xuntuma kon soo koy firi ci baatir baatin thani yasnayni idhuma fi gaari ahadiyati kon ñoom la woon parce que ba yonent bi ne kuntu nabiyan arifan bi nubuwati wa aadamu bayna almaai wa tiini yonent laa woon te xam na yonent laa te suñ baayu aadama moo ngi diggante ndox ak ban ba ko yonent bi waxee te bàyyi déggal ko ne rasulun wa aslu nnaasi maaun wa jandalun fala unsa fi zaaka zamani muannisa rasulun mu ne yonanti yonanti la woon wa aslu naasi suñ baay maa un wa jandalun di ndox ak bante fala un sa fi zaka zamani mu annisa amul kenn koy wéttali jamono jooju nag Cheikh Tidiane nee na moom tamit kuntu waliyan aarifan bi wilayati wa aadamu bayna al maai wa tiini waliyu laa woon te xam ne waliyu laa te boobu aadama moo ngi diggante ndox ak ban suñ la ko waxee da nga dégg naam parce que kii moo motal yonent kii moo motal waliyu yàlla yi diggante maam la ak doomam ndax Cheikh Ahmed Tidiane surtout yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam la tazahara fihi al jaddu wal jaddu wal jaddu mazharun li rabbi ilahi al arshi nima wala'u Baye Niass ne ne tazahara fihi al jaddu maam ji de feeñ na ci doom ji mooy sët wal jaddu te maam ji mazharun feeñu kaay la li rabbi ci yàlla ilahul arsi ilahil arsi kon ni'mal ni'mal wala'u foofa nag ci maqaama googu diggante Cheikh Ahmed Tidiane ak yonent bi haddis wala parce que seen diggante dafa yaatu dafa xóot ñaari ruuxu ya doon dund balaa dara maasifataani qadimataani haadisataani zahirataani batinataani muzhiruhuma dunia wal axira qablahuma wa ma euh, kon foofu xam naa ñoom euh, Cheikh Konté ñoo ñoo fay comprendre jarul ñuy dugg ci maqaama googu waaye ñoom ñaar Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen ñaari ruux yi nekkoon na balaa yàlla di sàkk asamaan ak suuf cheikh ahmad tidiane nag radiallahu anhu li ma wax ne moom moo motal wilaaya ci xeetu muhammad nekkul ne maa ko wax nii rek waaye moo ko wax parce que am na benn bés mu ne al waqtu waqti wa zamaanu zamaani wa sabqu sabqi wal inaanu inaani man habbani falyajtanib man sabbani in kaana saana mahabbati wa ra'aani وإذا حبيبي قد ألم بمبغدي فكلاهما في البغد مستويان الوقت وقت وقتي سما وقت له والزمان جمن زماني سما جمن له والسبق سبقي روغي سما رولا والإنان إناني لها بما كو يرسم على حبل ما ما جمل مبيري فما نخي من لا يالله جو خلافة من لا يالله جو قربانية من ما ير ختمية من ما ير كتمية واي نك pour خم مقام غور يالله yàlla ني ملني شيخ comme ñu mel ni ma ne woon naa joxoon ci maqaama baatin bi tuuti nga xam ne moom cheikh daan na wax tasattartu an dahri bi dilli janaabihi fa sirtu ara dahri wa laysa yaraani falaw tasali l ayaama masmiya ma darat wa ayna makaani ma arafna makaani bàyyi eh, cheikh ahmad tijaani nee ne tasattartu nëbb naa an dahri dama làqu sama jamono ja sama jamono gisuma ñu ne ko foo làqu mu ne bi zilli janaa bi ci keruk wetuk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa sirtu ara dahri ma mujj di gis sama jamono وليس يراني سما جمانو دوما غيس فسرت ارى دهري وليس يراني من فلو تسال الايام سو لاجون بسي مسمي سماتور ما درت خمنو سماتور واين مكاني فان موي سما بلاص سوكو لاجون ادونا ما عرفنا مكاني ادونا خمون سما بلاص سو لاجون بسي من ما يكن فلو تسال الايام مسمي من ما يكن خمنو ما واين مكاني انا سما بلاص ما عرفنا مكاني خموني سما بلاص كن suma waxee لولو su ma waxee ne Cheikh Ahmad Tidiane yi moom moo raw góor yàlla yi nekkul ne xëy na damaa réeree góor yàlla yi laaj ma Junaydu wala nga laaj ma Ibnu Arabi al-Xaatimi wala nga laaj ma Alxasanul Basri wala Abu Yazid al-Bastami wala su la neexee nga laaj ma Abul Mawaaxib al-Shazaliya wala nga laaj ma Xallaaj wala Abu Madyan al-Xawth su la neexee nga laaj ma ahmadul badawi wala ibrahima dasuqi wala sahal ibnu abdillahi at tasturi su la neexee nga laaj ma ghazali wala abul hasan shazali wala amr ibn al farid wala muhammad wafa wala zunnun al misri su la neexee nga laaj ma shibli wala aliyul xawaas wala shaarani wala imam al qusayri wala nga laaj ma abul qasim al qabisi su la neexee nga laaj ma marjani ibnu hayyan laaj ma juni gaa yooyu yëpp xam naa seen maqaama xam naa fa ñuy dund waaye fay seex tollu ci yonent bi ak ci maqaama diggante ak yàlla gaa yi xeeñtu ko te li koy firndeel mooy nga déglu ñenn ci góor yàlla yi ñoo ngi joxoñ maqaama Cheikh Ahmad yi nga xam ne ndeke Cheikh lam wax waxeewu ko bànneexu bakkan والناس اكيس من ان يمده رجلا من غير ان يجد اثار احساني نين ني باسي نان با نيو جوخون غورغا تي غورغا نيكول موم شيخ احمد تيجان باسي نا فاموي واخ سي يالا لو خام دنج كوي تاخاولو كير الاخره ني نكو يا واخون لي تي دو دغ كون ناك سو شيخ عمر الفوتي نيوي نيك تيجان تي مانون ام طريقه ولا الحاج مالك سي نيو نيك تيجان تي مانون ام طريقه الحاج عبد الله نيس منون ام طريقه يونيك نيك طالبه باي نيس رضي الله عنه منون ام طريقه ولا صح منون ام مذهب ندخ دونجيت قد كان الاوزعي امام اهل الشام يقلدونه وانتقل مذهبه الى الاندلس وظل مامولا بجانب الامام مالك ومحمد بن جرير الطبري كان له مذهب في الفروع وأتباؤه هم الجريرية والإمام داود بن علي الأسبهاني كان إمام مذهب أهل الظاهر ظل مذهبه مدة 300 سنة معمولا والإمام زيد بن علي إمام الزيدية لا يزال مذهبه في اليمن معمولا إلى وقتنا هذا وأبو عبيدة القاسم بن سلام مجتهد مستقل إذا قد كان للشيخ قد تمكن له أن يكون له طريقة وأن يكون له مذهب وأن تخنك منيو nek tidiane lol mo lay wan ne la Cheikh Ahmad tidiane wax deug la ndax su nekul won deug ñi duñ nek ñëw nek taalibe ndax alxaaji Malik si daan wax tariqa go xamne ne Seydi Umar al Seydi Cheikh Umar al futi daanaka taalibe la ci tariqa gog man de taalibe la ci tariqa gog nga xol ndeke aarifina billahi nena na waqad taqtadi al ahwaalu sixata ma da'u wa ma kullu halin taqtadi sixata da'wa gor yàlla yi danañ wotu hal so len xole ñu Música ñu xool ko ndeke walhamdulillahi méngoo naag maqaama googu ndax fa daawatul mar'i tutfi nuura bahjatihi walaw bi haqqin fa kayfa almudda'i zalala aarifina billahi nee nañ fa daawatul mar'i nit ki su wootoo maqaama goo xam ne yegg ko tutfi nuura bahjatihi day fay day fay sa leeru kanam walaw bi haqqin fa kayfa almudda'i zalalan kon Cheikh passé na foofu Cheikh Ahmad Tidiane ba mu wootoo ne qadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyin lillah wala laa yashrabu waliyun wala yasqa illa min bahrina min nachati alalami ila nafxi fi suur boobu xam na garaatu wali yàlla yi إمام الجنيدي أول من أظهر الطريقة على وجه الأرض كان مونجك إن الطريقة كوسوف الإمام الجنيدي في جمانهم لولاية تسعره خمنا نندمي ون جمانهم إمام أهل الطائفة ابن عربي وهم كسانخ حسن البصري سيدنا علي موكير مقام بكوين النول رجل يالله ba benn gàtt sàcc nañ ko ci jamonoom benn xar mu laaj ñaata at lay xar di dund ñu wax ko mu toog at yooyu lekkul yàpp xar ngir ragal a lekk yàpp xar dajak xar gañ sàccoon ki yegg na fii ci ragal yàlla maqaama bi kowe woon kan mooy abu yazid al bastaami ku nekk xam na abu yazid al bastaami kan mooy abul mawaahibi shazali ka waxoon ne raaytu rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam fa axbarani an nafsihi annahu laysa bi mayitin wa innama mawtuhu cibaratun an man laa yafqahu an illah wa amma man yafqahu an illah fa haa huwa yaraahu wa yaraa gis naa yonent bi mu nettali ma ci boppam ne deewul deewam dafa firi ne dafa làqu ñi xamul yàlla waaye ku xam yàlla yonent bi lay gis ma moom ngay gis kon nga xam ne kii dem na ba ci grade googu grade gi kowe na xalaaj ki amoon shahada qalbiya nga xam ne dem na ba gisatul boppam waaye di gis ka sàkkoon boppam ndax eh, dafa dem ba nga xam ne leeru yàlla gi ëpp na leeram gam yoroon daanaka yàlla feeñ ci xolam eh, feeñuk leer ci lëndëm ndax leer sans bu feeñee ci lëndëm rek lëndëm day able yàlla am amum ak am amuk jaam ji dafa mel ni ñaari sukun soo jàngee grammaire arab ñaari sukun suñ daje rek hurrika ahduma li tiqaay sakineni kon bam demee moom hmm, ba mawju bahril haqiqati fëlëng am amam almajaas yi mu daal di nekk dugg ci shahada qalbiya dina laa ilaha illa ana subhaani ma azama shaani bañ rey ko maqaam gu koy googu xëy na incha allah su suñu yàlla maye ci guddi gi danañ ci gën a yaatal